moom mi nga xam ne moo di xalifatu Cheikh Ibrahim borom Daaru Mooti yabal nu nu ànd ak njabootug Cheikh Issa jan ci mbooloo mi nga xam ne ñoo di jamhiyatu tawdih wa nashr li injazati Cheikh Issa jan te muy amee ci ndigalul yi nga xam ne moo di ab xalifaam di sëriñ Abdou Latif jan ñu nuyu mbooloo mi yëpp ci góor ñi ak ci jigéen ñi mbooleem ku nekk ci jataay bi di leen jottali waa leen nuyoo bokk bokk yi nga xam ne ñoom lañu àndal wala ñoom laa àndal te bu ma nee sëriñ ay dara moom sëriñ Dame fàtti ñu sëriñ Xaadim moom sëriñ abaas yóbbaale na mbooleem mbokk yi nga xam ne ñoom lañu àndal ñi nga xam ne jàppandi na lépp ñëw nañu ndax xam nañ ne xat-xat yi bari na te bis bi itam jaral na walla war naa jaral ku bokk ci boroom Daaru Muxti lu nekk kon lu fi ñëw rekk yéene woon nañu lu ëpp loola ñëw fi ñu nuyu sëriñ sooy bu jan moom yi nga xam ne moo teewal sëriñ Abdou jan ak mbooleem bokk yi nga xam ne ñooy mbokk yi yi te sëriñ Cheikh jan bokk ci ñi gën a taxaw ci liggéey bi waaye rek ni ma ko gàttale ci ñi ma àndal noonu laa koy gàttale ci ñi ngeen àndal mbooleem ñi nga xam ne ñooy bokk yi ñu nuyu leen te wone rek ne jàpp naa ne kàddu yi lu gàtt lay doon lu tax moo di lépp lu ñu fi waroon a xamle ci Cheikh Issa Diagne wala ñu war koo xamle ci borom Daaru Muxti mi ñu ko tuddee liñ ci jot a wax doy na sëkk te nit ki dafa am loo xam ne dañu la koy waxal waaye doo ko wax loolu moo tax dañuy indi cant ak ngërëm ak mbégtam sëriñ Abbas mi nga xam ne mooy borom daaru mooti tey ci kaw suuf te kenn ku nekk xam boroom daaru muuti ak sëriñ Issa Dienne li nga xam ne moom lañu ñu ci li ngeen fi jot a dégg ca suba ba léegi ci lépp dellu ci moomeeluk sëriñ Touba ak maneeluk sëriñ Touba kon ci turam la ñu leen di sante di leen gërëm di leen jot jottali mbégteem te bu sëriñ Abbas bégee rek képp ko yaakaar borom daaru muuti yaa ngi ci biir mbégte moomee ndax euh, li nga xam ne jot nañ ko fee dundal ruu yi ca subaak léegi bi ñu fi toogee jàpp naa ne bu ñu fi doon fanaan ba ba asamaan setit du ëpp te kenn du yëg coono ndax euh, li nga xam ne moom lañu fi wone dafay loo xam ne dafa bokk ci li gën a tumurankee ci jamono loolu mooy euh, jamono dafay dem ba tolloog nit ñi foo xam ne boppam rek la leen di won boppam rek la leen di won mooy jamono dafa bari ay mbubb te bari ay melo day bëgg nag mbubb mu mu sol ak melo mu mu sol rek doomu aadamay fekk ko ca loola kon su boobaa suñu demee ba yëg ne loolu am na fàttaliku gaa yu baax yi nga xam ne su la yàlla dimbalee dara dara dara ci lu xel mën a jàpp danga ci mën a dimbali ko loo xam ne boo xoolaatee sa bopp def ko muy ab seetu danga xam ndax yow yaa nga woon ca yoon wa wala nekkoo ca woon wala war ngaa jubbantiku wala war laa jubbantiku kon seetu boobu nga xam ne mooy taw tawdia bi nga xam ne moom la jamaaya bi tudd boole koog nag buñ ko amee ba noppi wëlbati ko wonewaat li nga xam ne mooy liggéeyu Cheikh Issa jan loolu dañ ko soxlawoo lool ci jamono bokk na ci loolu mooy xam-xam yi nga xam ne wone nañ ko fii ci xam-xamu Cheikh Issa Diagne muy Serigne Touba moom ku muy defloo ku nekk la mu lay defloo xam na ne mën nga ko ba noppi déggoo na ci ak boroomam nga door koo def xam-xamam ak ak ak ajoom ci borom ba sëriñ tuubaa ak déggoog ñooñ Serigne Touba. loolu jàpp naa ne lu nit gàtt gàtt xel wala gàtt gàtt ab nopp war cee dégg war cee xamee loo xam ne dinga xam ne Cheikh Issa Diagne kenn la ci Serigne Touba te loolu mu nekk kenn ci sëriñ Touba nag ñun ñi nga xam ne ñooy askanoo ci boroom daarul moo Mouti nun loolee duñ ko loole nu umpale wuñ ko ndax ñoom ñaar dañoo dem ba nekk jenn jëmm joo xam ne yaari jëmm yi dañoo dem ba tafalo ba nekk benn jëmm joo xam ne seen seen seen taarix. da ngay wax ne benn taarix la boo xam ne ñaari nit ñoo ko bokk benn taarix la boo xam ne ñaari nit ñoo ko bokk ci seenu jaxasoo diggante ak sëriñ bi li nga xam ne sëriñ bi jëfloo na ko Cheikh Issa jenn diggante ak boroom Darou Mouhty ak la leen jëflante ñoom ñaare ci ndiggalu sëriñ bi ak bëgg-bëggu sëriñ bi loolee nag ñu war a wëlbatiku nag taxaw xool ne ñi nga xam ne ñoom la ñuy fàttaliku te jamono soxla loolu moo di ne am sa kilifa mu doy loola def ci yow li war a nekk ci yow lépp te xam ne loolee mu def ci yow digganteem ak boroomam Serigne Touba lu muy def lu nekk daa fekk mu juboo ci ak boroomam ba noppi kon loolu bi nga xamee ne loolu am na ci digganteem ak euh, Cheikh Issa Diagne am digganteem ak euh, borom Daaru Muxti loolu li ñu tuddee ak takkaamul dafay am seen seen diggante complémentarité dafay am ci diggante boobu ndax Serigne Touba mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko dar kenn ku ci nekk. dafa am loo xam ne mooy wet ga nga ko féete mu jëlaat lépp nag delluwaat ci moom ndax lépp looy wax lu nekk da ngay xam ne sëriñ tubaa rek mooy lépp ndax fu dara nekk moo ko fa moo ko fa yóbbu fu dara yëngatu moo ko yëngal te bu bu kenn ku ne ubbee sa robinet da ngay defe ne yow dong yaa amul ndox waaye forage bi moo leen jox ndoxam ñëpp teen bi moo leen jox ndoxam ñoom ñëpp sëriñ tubaa nag mooy ki nga xam ne mooy ball di joxe ñi nga xam ne ñooy joxaat ñi ci des ñuy ñuy ñuy naan kon loolu buñ ko buñ ko gisee liñ ciy déggee ne am sa kilifa joxe cër bi ba mu mat dafa baax amatu lu ñu amatuñu lu ñuy xamle ci borom daaru moo amatuñu lu ñuy xamle ci euh, Cheikh Issa Diagne waaye nag jéem a roy ci ñoom ci euh, xam ne sa kilifa sëriñ Mahmoudan Jobe dafa mos a wax ne radiyallahu taala anhu damaa jàpp ne borom daaru muuti fi ko sëriñ Masamba teg ak li li ñuy bokk bokk wayjur dafa xam fi ko sëriñ tuubaa teg te ku bëgg nit dangay bëgg la mu bëgg mu ne jàpp naa ne loolu moo yokk la nga xam ne mooy cofeel gi ma amoon ci moom ndax dañoo demoon ba àgg foo xam ne moo sëriñ Masamba sëriñ Masamba buy ñëwee dafay day toog jël jël jël tànki borom daaru mu teg ci kaw muy lu yéeme di ko bés boole ci lu ciy waxtaan ak sëriñ Abdou Khoudous bis moom sëriñ Mahmoudan sëriñ Mahmoudan ne ko dama jàpp ne daal la mu xam ci sëriñ Touba ak ni mu bëggee sëriñ Touba ku sëriñ bëgg loola lay topp ba àgg si ci moom bàyyi eh, diggante ak Maam Mor Anta Sali ca wet loolu moom mooy li ñu war a gëstu ci mbir yu mel nii ndax bu ñu xamee ne borom Daaru Muxti Sëriñ Tuubaa da koo duyal ba mu fees maam Cheikh Issa Diagne Sëriñ Tuubaa da koo duyal ba mu fees ñu wëlbatiku lépp boolewaat ko muy benn di liggéeyal Sëriñ Tuubaa di wane ni nga xam ne nii lañu war a ànde ñi bokk Sëriñ Tuubaa nii la ñu war a ànde ñi bokk yarub Sëriñ Tuubaa nii la ñu war a ànde defe naa ne bu ñuy bu ñuy bu ñuy roy ci loolu la ñu war a xool xam ne nag lii ñu ni fi woon bu dee ci xam-xam bi ñu wonee ci mboolem waxtaankat yi nga xam ne wax nañ ko fi léegi wala li nga xam ne dégg nañ ko fii ci liñ doon wone léegi loolu lépp dañu coo war a jëlee na rek euh, ba tey nun am nañu ay royukaay yoo xam ne suñu jàddee yoon wi rek ci nun la bu ñu dëngee ci nun la waaye yoon wi moom mu ngi fi ba tey te du te du te te du raaf mukk ndax Sëriñ Tuubaa moom sunu borom may na ko loo xam ne ba ba àddunay tukki ku bind mënu ko mënu mënu ko fee jëlee jantam bi day gën a leer waxtu wu nekk mbiram dafay gën a fës te kenn kenn mënu ko kenn mënu koo suufeel loolu moom sunu borom defal na ko ko mu dëppale ko ak ki nga xam ne mooy jëwriñam ca mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li feek mi ngi dem te du te du fi jóge mukk alxuraanam di dem te du fi jóge ba mukk loolu loolu lay àndal kon dañuy xam ne ñun am nañu loo xam ne bu ñu ko doon jaay doo am njëgam ànd ak Sëriñ Tuubaa kenn mënta am njëgam kon li ñu war a xam mooy noonu nga xam ne gaa yu baax yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom ñu te ñu tudd leen fi lenn ci ñoom léegi nañu doon nañ doon dundee ci seen biir ñoomu ñoom ñi topp ci ginnaawam ak nañ doon dundee seen digganteeg moom loolu lañu war a xool di ci jaar te lenn bañ a buur suñu bët dara war a bañ a taxaw suñu kanam ba nu fàtte loola wala nu jaawale loolu ma dellu ko ne jamono mooy am mbubbam yu bari ay melokaanam te day bëgg waxtu wu nekk ñëpp mel ne moom te loolu ku yàlla nattu rek moo koy dem te mboolem liñ fi liñ fi wax ci ci ci ci xam-xam lépp ci diine la dellu te li mu delloo ci diine mooy xam-xam moom sa diine nu mu mën a mel su fekkee ne xam-xam ba matul sa diine mën naa manqué waaye nag na fekk ne booba da amul ku mel ne Serigne Touba Serigne Touba nga xam ne dafa waxoon ne yéen ñi ànd ak man yéen ñëpp kenn ku ci nekk li war sa diggante ak sa borom ci sa diine dinaa ko warlu won leen ko jaare leen ci ngeen di ca jaar. kon ku ca jaarul ku nekk seytaane dafa laa jekku kon loolu mooy li nga xam ne dañoo war a xool bu baax a baax li nga xam ne moom la sëriñ bi rëdd ñu di ca jaar te bañ a xool leneen te kat su fekkee ne naxante wuñu jaayante wuñu dana danañu xam ne dafa mel ne sëriñ ba la mu mënoon da koo mënatul wala sëriñ bi ñi nga xam ne ñoom la fi bàyyi lañ mënul da lañ lañ mënoon dañ ko mënatul wala fañ war a nekk dañ fa déedéet sëriñ Touba. làmpam du fay mukk sëriñ Touba soowam mi bu ci kenn dugal lu ñuul gis nga li borom daaru muuti waxoon rek mooy li am sëriñ Touba lu mu bëgg noonu lay ame teg ci ne man ci sama bopp it lu ma sant danaa ko def kenn ku nekk ci noonu foofu la war a xool xam ne sëriñ Touba du du bëgg mukk te bu ñu nee sëriñ Touba nag ku fi nekkal sëriñ Touba mooy sunum sëriñ Touba. borom daaru muuti bii ñuy wax nii loolu la daan wax dafa xam ne ku fi nekkal Serigne Touba na ngeen ko def mu seenum Serigne Touba. baax a baax a baax amaat mbégte lool ci kàddu yi cant gi moom mu ne su koo wax fu ñu ko takk rek romb na ko ci yëg gi jëfe gi yitte ji